na la mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah C3S moo dellu saat yéen di jongante mbindum alxuraan bi mu baaxoo amal at mu nekk édition ren bi nag dépôt yi ñeel yi ci bëgg a bokk dina door benn fan ci weeru octobre 2022 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2022 yow mi ci bëgg a bokk dangay bind lu tolloog xët ci alxuraan def ci sa tur sa san sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko C3S bi la gën a jege wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bi di candidat point yaatal nga topp tegtal yi lay jaarale ci yoon wii tax ñu mën a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 نعمة ربك بمجنون الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu santee yàlla sunu borom waxtu wi dafa xat di ajjuma moo tax li ñu waroon a wax ci kàddu yi arab ñu far ko tënk rek ci wolof di sant yàlla di julli ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam di yëkkati kàddu yi ci ndigalul sunu kilifa muy cheikh Mouhamadul Bachir muy kàddu yoo xam ne da koy jottali ci ndigalul sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mboolem kilifa yi fi teew rawatina njabootuk na Ahmadul Xadim gi toog ak njabootu bokki Cheikhul Xadim ak njabootu mag ña àndoon ak Cheikhul Xadim ñu ngi nii fegoo ak moom ngir bis bi mu ngi leen di nuyu di leen xamal ne mbir mi seen mbir la di nuyu na kilifa diine yëpp di nuyu doomu soxna yëpp di nuyu jëwriñ ji nga xam ne moo fi teewal chef de l'État monsieur Antoine Abdoulaye Diome ak délégation bu mag bi mu àndal te danaa ci ñëw léegi di nuyu corps diplomatique bi di nuyu ñi fi teewal parti politique yëpp ak bu ñu mën a bokk di nuyu jàmbur yi nga xam ne bokkuñ ci benn parti di nuyu bokki jullit yëpp di nuyu bokki taalibe yëpp nee na mu ngi leen di sant ci seen teewaay ci bis bu tedd bi seen teewaay day wane ne ñun ñëpp ñoo bokk luñ mënta séddoo te mooy lislaam sëriñ Tuubaa nee na al muminuuna ixwati wal muminaat lii axawaatun wa xayaati xasanaat kon xam ngeen ne yéen ak moom yéen bokk diine te kenn mënu ko séddoo ngeen ñëw ci bés boo xam ne nag dañuy fàttaliku bis bu tar bis bu metti muy bis bi nga xam ne ci la sëriñ bi jàmmaarloo woon ak tubaab bi ñu teg ko ay tuuma jaay ko doole waaye mu jàpp ci pas-pasam sax ci ngëm-ngëmam muñ ko muñ ko rafet suñu defee lu ñaaw moom mu rafetal waaye yàlla neen hal jazaa'ul ihsaani ila ihsaan bu ñu ko tooñee mu jéggal leen yàlla nee na fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala yàlla nag may ko loo xam ne da ko caa war a sant mu di ko ca sant di ko ca sant ba yàgg mu ne lottu naa ci sant sama borom kon nangeen ma santale sama borom shukru ilahi xaana si turaabi baada jamili sabri fi bi yow jëwriñ ji nga xam ne yaa yore mbir mbirum biir réew mi sëriñ Bachiru nee na ci turu sëriñ bi mi ngi bàkk mi ngi kañ ndaw yi nga xam ne fu ñu defee concours bitim réew ci alquranul karim bu ñu demee yëkkati fa raaya senegal bu ñu ñibbisee andi ndam at yi ku ne seetlu seetlu na ne ndaw ñi fu ñu demee concours rek ci bitim réew dañuy àndaale ndam nee na sëriñ bi mi ngi bàkk ndaw ñi mi ngi leen di kañ loolu nag day wane na Sénégal dañoo fonk alquranul karim moo tax mi ngi ñaax état bi lu ñu gën a mën a jàppale daara yi nañu ko jàppale mu ngi digal nag taalibe murid di lu ñu gën a mën a jàppale daara tam nañu koy def te lépp luy xajamal daara nañu ko sori nee na mi ngi rafetlu ñor gi nga xam ne waa senegal dañ ko ñor ñor gi mooy ñaari jongante am ci menn at élection ñaari yoon ci menn at mu jàll ci jàmm ak salaam dara xewul lu dul jàmm nee na loola mi ngi ci mi ngi koy mi ngi koy mi ngi ci naw waa Sénégal di digal état bi ak mbooleem ñi nga xam ne dañuy politik ak sax jaamur yi nañu gën di waxtaan ànd àndu nawle di weccante xalaat ndax waxtaan mooy jëme réew mi kanam mooy jëme waa réew mi kanam nee na mi ngi ndokkeel tam gouvernement bi ak sunu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci bëj saalum réew mi ñu doon jàmmarloo at yu bari yàlla dogal ñuy waxtaan di waxtaan ba déggoo ba wéer ngànnaay yi te ay dëkk gent na ci ay njaboot tasaaroo na ci deret yu bari tam tuuru na ci waaye waxtaan nañ ba juboo ndax juboo moo moo gën lépp wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhaba riixukum kon nee na mi ngi ciy ndokkeel état bi di ci ndokkeel sunu mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk dëkk ci bëj saalimu senegal nee na sëriñ bi mi ngi sant ki jiite réew mi ci liggéey yu réew yi nga xam ne def na ko fii ci dëkk bi liggéey fépp ci réew mi waaye def na ko fii ci dëkk bi assainissement def na ci lu bari ay yoon def na ci lu bari wàllu wér-gi-yaram def na ci lu bari wàllu ndox def na ci lu bari wàllu courant def na ci lu bari waaye nee na mi ngi koy sant nag cantuk xaas ci hôpitalu Cheikh Ahmadoul Khadim bi nga xam ne def na ko ci Touba muy loo xam ne ñun ñëpp war nañ cee jàpp di ko saytu di ko sàmm ndax kat caaxaan mayewu ko nee na mi ngi sant nag mbooleem ñi nga xam ne dañu liggéey ci wàllu santé te yi muy dëgmati muy xew ci hôpital yi ci biir réew mi nañu laxasaayu ba mu dakk ba jeex tàkk nee na mi ngi sant état bi ci li muy jàppale baykat yi ak sàmmkat yi ak nappkat yi ak transport bi ak artisan yi waaye lum leen jàppale woon mi ngi ñaan nañ ko yokk ndax ñii ku leen suqali réew mi dana suqaliku nee na bët bi muy door a sébbi na nawet bi xawoon naa sooxe waaye bi ñu ñaanee yàlla ndox mi ngaa na baawaan na ba am na sax sun mbokk yoo xam ne mbënn mi da leen a lor mi ngi leen ni massawu seen coono di ñaan état bi coono yi nga xam ne mi ngi koy def ngir saafara ko na ko jëme kanam ba mu jeex tàkk ba ñu koy nettali nee na ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw mi ngi leen di massawu ndax ci askan wi lañu bokk mi ngi ñaax ña nga xam ne ñoo leen di sàmm yor leen ñu gën leen a saytu gën leen a yërëm gën leen a sàmm ba suñu génnee mën a bokkaat ci askan wi mën a amal njariñ réew mi ndax foofa ña fa nekk ñett rek ñoo fa nekk ku dëng dañ ko fa yóbbu ngir mu jubbantiku ku juum dañ ko fa yóbbu ngir bëgg mu delloo si xelam ak ku ñu tuumaal te deful dara su fa demee nag na teewlu ci kanamam natub Yuusuf alayhi salaam ak natub Cheikhul Xadim yéen mbokk yi ba Bachiru nee na sëñ Touba dafay yar taalibe yi ak mag ñi ci wëkkirlu ci yàlla yaakaar yàlla képp ak nangoo liggéey te bu ñu liggéeyee ba am ko ñu bokk kook ñëpp tey seexlu lu ñaaw muy ab safaan kon yéen taalibe yi nee na li muy dénk boppam moom la leen di mooy nañu gën a mooy ci njàngaleem Cheikhul Khadim nañu gën a jaar ci ay tànkam nañu gën a roy mag ña àndoon ak moom nañu gën a tasaare jàmm di ko dox di ko wax suñ digganteek ñi ñu ak suñ digganteeg ñi nga xam ne sax bokkuñu diine nañu yar suñuy doom yarub diine ba yi nga xam ne day jóge bitim réew di wal di ñëw bu ñu ñëwee fekk leen ñu amum ñag bu leen ñag ba du leen lor nee na li muy tëjee kàddoom nag moo di bis bi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci atum junni ak ñett téeméer ak fukk ak ñett bis la woon boo xam ne xarkanam yi dañoo lëndëm xol yi dañoo jàq xol yi dañoo naqari waaye ren fukk ak juróom-ñett ci weeru safar atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent xar kanam yëpp a leer xol yëpp a féex nit ñëpp a bég nit ñëpp a bég loolu nag lu muy wundu day wundu ne. ka doon liggéeyal yàlla ak ñam àndaloon ba ñuy liggéey liggéeyan liggéeyantu liggéeyantu wuñu waaye ki leen di fay itam bi mu leen di fay fayantuwut waskuru is antum qalilun mustadafuuna fi l ard taxaafuuna an yataxatafakum nnaas fa aawaakum wa ayyadakum bi nasri wa razaqakum min altayibaati laallakum tashkuruun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon léegi dañuy ñëw ci lim ñi nga xam ne ñoo teew ci màggal gi waaye lañuy njëkkee xam ngeen ne ren yoon wi dafa tàng jër accident yi bari na ba tey ci suba wax nañu ne ñaar fukki nit ak ñeent ñaar fukki nit ak benn faatu nañu faatu nañu te dañoo doon ñëw rek ngir sàkku citoyen bo ngir sant la sëriñ Touba sunu borom kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla tàbbal leen àjjana ja gën a kawe am na itam beneen xew-xew muy dëkk bi ñuy wax Fulaadu Kabindu Fulaadu Kabindu seen xalifa ba Cheikh Babacar maane dafa yebaloon délégation ci njiitul Mouhamadou Lamine Cissé waaye ba ñuy ñëw dañ ko bàyyi yaramam xaw a naqari mu batale woon ne su ma faatoo nañ ma yóbbu Touba ba indi nañ ko Touba rob nañ ko Touba kon sëriñ bi nee na na ko ñëpp ñaanal yàlla na daje ak ngërëmul yàlla yàlla na ko sëriñ Touba teeru kon nag monsieur Antoine Ablaye Diome teewal na fi. chef de l'État ànd ak mbooloo mu takku mën naa ci lim soxna ndey Saly jóob Dieng ak monsieur Dame Diop euh, ak Pape amadu njaay ak Yacouba jatara ak Serigne Cheikh Abdoulahad Mbacke Gaynde Fatma ak monsieur Gadda Sall ak nag gouverneur bu Diourbel monsieur Ibrahima Fall préfet bu Mbacké monsieur Amidoune Diop su préfet bu Ndaam monsieur Babacar Ibra Mar ak nag député maire bu Diourbel monsieur Malick Fall ak maire bu Mbacké monsieur Gallo Ba bi ñu agsee nag sëriñ Abdou ab lahatka di maire Touba moo leen teeru dalal dalal leen ci ndigalul sëriñ bi ak itam protocole bi loolu la laaj Abdou Lahad Ka nag sëriñ ba siru nee na sëriñ bi mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm ndax màggal gi da nga taxaw taxawaay boo xam ne seeral ko ñëpp ba ñu xam ne yaa ngi ciy góorgóorlu sa kem kàttan dafa jaado kon mi ngi lay sant mi ngi mi ngi lay gërëm maître ma dikk ñaatam teew na fi euh, moom du ko ñuy présenté opposition bi ñëpp teew nañu waaye danaa ci tudd rek délégation maître Abdoulaye Wade ci njiitul Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly mi ngi ni toog ak Soxna Waré Sarr ak monsieur Alioune Diop bu dee kilifay diine yi nag waa kër maam Alxaaji Malick si sëriñ Sidi Ahmad si moo jiite mbooloo ma bu dee al usra al omariya waa kër suñu maam Cheikh Omar Louga ca luga xalifa ba yabal na Thierno Nourou Tall mu teew fi teewal fa mbooloo ma waa Medina ba Medina Baye Niass Cheikh Mahi yebaloon na délégation ca fan yële ñëw na ba saafonteeg sëriñ bi laayeen Sina Issa ngi ni jàkkaarloog ñun nag nam ko daan defee naka jekk teew na Njaasaan Cheikh Bekaye Kunta teew na ànd ak mbooloo Canaba sëriñ Demba Sarr al Moustarchidoun alhaaji Malick Mbay jaamal sëriñ Ousmane Cissé piir gu rëy sëriñ Mansour Cissé Bamba Modi sëriñ Mouhamadou Sall njabootu sëriñ Abbas Sall xam ngeen ne eh, xalifa ba dafa làqu yàlla na ko yàlla gën a dolli ay ngërëm ngërëm ak leer muy sëñ Mansour waaye xalifa ba fa teew nag di sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sall yabal na al imaam Abdoulahi Sall mu ànd ak délégation Guyet sëriñ Moustapha Haydara eh, bu dee Thiès waa kër maam Alaaji sëñ daama ngi ni jàkkaarloog ñun yàgg na ko teewe teewal fi sëriñ bi ak mbooloo ma ndeer naar sëriñ Ahmad Kunta Ibadur Rahman seen amir Mouhamad Bamba Ndour euh, mbootaayu imam yi dëkk Pikine al imam Dame Ndiaye Kédougou Yoro Mar teew na fi Màkk Koulibantan sëriñ Mouhamadou Khalifa Diaby Ngouraan sëriñ Naar Seck ak délégation ahlullahi Ndand sëriñ Moustapha Dramé Koyli Alpha eh, Serigne Moustapha Ba Ngumba Ngew Ngumba Ngewul Serigne Maam Sayar Diop délégation bàyyi ko Medina Baye Maska ca Gambi xalifa bu Cheikh Mouhamadul Hadi yabal na Serigne Ibrahima Ka mu teewal fa njaboot ga te xam ngeen diggante Medina Baye Mas ak Touba ni ñu jege waa kër Maam Maxtaar Kala Dramé Serigne Alaaji Dramé teew na ànd ak sëñ Pape Dramé ak sëñ Maxtaat Dramé ñoom waa kër Tafsir Mor Ndiour sëñ maam Mouhamad Seck Ndiour teew na fi Arafat kër El Hadj Omar Dramé Cheikh Ibrahima teew na fi Wurumadi yu Podor sëriñ Thierno Alpha Ba teew na ak délégation Cheikh Fonsou Bodian ca Bignona sëñ Mouhamad Lamine Badji teew na fi Jimbira délégation ba fa bàyyee ko ca Kébémer Cheikh Talibou yu Jimbira moo ko jiite union union des musulmans du Sénégal alaaji Cheikh Jibi moo ko jiite mbootaay gi nga xam ne ay defkat lu baax lañu oustaz Jili saar moo ko jiite fondation Maam Xaali Amar Fall Serigne Modou Fall moo ko jiite njabootug sëriñ Mouhamad Séné Gueye Wokaam Alhaaj Mouhamad Kamara moo jiite délégation ba Fulaadu kabindu wax naa ko léegi moom la xalifa ba wàccub liggéey te ñu indi ko Touba yàlla na ko yàlla gën a yërëm njabootu maam Mouhamad Bamba Sorang Abdou Cissé Sorang teew na fi njabootu sëriñ Moustapha Tandian sëñ As Tandian teew na fi daaray kokke sëñ Maxtaar Naar Lo teew na fi Rumde Thierno usmaan Mouhamad Aya Sow ñëw na ànd ak délégation euh, délégation maam Maxtaar Kala euh, am na keneen ko ñëw Alaaji Dramé am na ku ñuy wax Aliou Dramé Aliou Dramé Aliou teew na fi yàgg na fee teew waaye délégation ba xalifa ba yabal nag moom alxaaji Dramé moo ko jiite ak Pape Dramé ak Maxtaar Dramé waa sëñ Aliou Dramé tam teew na ci euh, tey sëtu Maam Matar Kala alaaji Tiijaan ñaa njabootam sëñ Ibrahima Ndiame ñang teew na fi njabootu alaaji si Mbay sëñ Babacar Mbay teew na fi itihaadul aima ci Sénégal sëñ baaba Cissé teew na fi njabootu alaaji ama dem Sokone sëñ Ablaye dem teew na fi diigaan xalifa bu ñëwoon na te yebal na it Cheikh Ibrahim Sow waa kër imam Maba Jaxu Ba sëñ Abdou Wahab Ba teew na fi Guet Ardo Cheikh Adjuma Ba teew na mbootaayu ilimaan yi ak olamaaw yi imam Alhaaj Omar Diène teew na njabootu maam Thierno Kanji sëñ alaaji Kanji teew na xisbullahi màggat sëñ màggat kan teew na njaboot alaaji Mouhamadou Sakho sëñ Ibrahima Sakho teew na mbootaayu daare alxuraan yi sëriñ Adama Seck teew na njabootu sëñ Mouhamadou Lamine Niang sëñ Mounirou Niang teew na mbootaayu ilimaan yi ak xutbakat yi imaam Ahmad Dame Ndiaye teew na njabootu almaami Abdou Khadir Kane sëñ Babacar Si teew na Daaru Salaam Nioro alaaj Mouhamadou Bachir Ndaw xalifa ba teew na Mbalaxe sëñ Aliou teew na ak délégation piir sëriñ Maodo Si sëñ Maodo Cissé teew na ànd ak délégation Léona Kaneen imaam Ousmane Ndiaye teew na ànd ak délégation xalifa bu teew teew na moom itam njabootu maam Ahmad Qurayshi sëñ Ablaye Diagne teew na ànd ak délégation Pete Warak alaaji Jibril Ndiaye ak délégation askaay ca Saint-Louis sëñ Mouhamadou Aliou Mbaye Morolan sëñ Mouhamadou Lamine Combaan mbootaayu doomu soxna yi sëñ Abibou Saaxu ak délégation am taslima ca Casamance alaaji Khalifa Diaby ak mbooloo ndànk Cheikh Aliou Mokhtar Kunta ak mbooloo Lubudu Cheikh Sidaati Sow teew na ak mbooloo welu mbil welu mbel Deyaali sëriñ Mouhamad Asid Sow di maire ba ànd na ak délégation muy dëkk boo xam ne dañoo yàgg jaxasoo ak Cheikh Ahmad Bamba mu dem fa ay yooni yooni yoon Madina Sowaane sëñ Cheikhouna Sowaane teew na njabootu maam Maxtaar Gajaga di ngiraay sëñ Cheikh Gajaga teew na ngeelu alaaji Moussa Ka teew na Médina Gonaas sëriñ Mouhamed Saïd aaj teewal na fi xalifa ba mbooloo mi ñu woy al ahmadiya sëriñ Abdoulaye Diop moo leen fi teewal am na ku baax ku ku fonk sëñ bi ñu koy wax Souley Diagne di mbokkum taalibe teew na waa al ansar délégation alaaji Cheikh Samb bu Mbuur Cheikh Cheikh Tidiane nga toog délégation buur seen Kumba Ndofène tam sëriñ Cheikh Dieng moo ko jiite loolu mooy kilifa diine yi bu dee nag <coughs> diplomate yi nga xam ñoo fi teew Angola Angola yabal nañ ndaw Algérie moom seen ambassadeur ambassadeur ñëw na Arabie Saoudite seen ambassadeur ñëw na Argentine yabal nañ ambassadeur Brésil yabal nañ ñaari ndaw Burkina Faso yabal nañ ambassadeur Cameroun ambassadeur ba teew na île Comore île Comore yabal na ñetti ndaw Congo Brazzaville ambassadeur ba teew na Cuba yabal nañ seen ambassadeur Égypte yabal nañ ndaw États-Unis yabal nañ ñeenti ndaw Gabon ambassadeur ba ñëw na Ghana yabal nañ ndaw Gambie yabal nañ ndaw Guinée-Bissau yabal nañ ndaw Inde yabal nañ ndaw Indonésie yabal nañ moom itam ndaw Iran yabal nañ ambassadeur Irak yebal nañ ndaw Italie yebal nañ ambassadeur keña yebal nañ ambassadeur ak Liban yabal nañ ambassadeur Libye yebal nañ ndaw Mali yebal nañ ndaw Maroc yebal nañ ndaw Namibie yabal nañ ambassadeur Niger yabal nañ ambassadeur Oman yebal nañu ambassadeur boo ko seetee muy fukki ambassadeur ak juróom-ñett Corée Sud yabal nañ ndaw Palestine yabal nañ ndaw Roumanie yabal nañ ambassadeur Russie yabal nañ ambassadeur Soudan yabal nañ ndaw Thaïlande yabal nañ ndaw Union européenne yabal nañ ndaw ONU yabal nañ ndaw UEMOA yabal nañ ndaw BID yabal nañ ndaw PAM yabal nañ ndaw Afrique du Sud yabal na ambassadeur France yabal na ñetti ndaw muy fukki ambassadeur ak juróom ñett ku ñu wax soxna Fatimatu bàmba mu nekkoon soxna jëwriñ jëwriñ ji jëkk ci Côte d'Ivoire le feu Amadou Gon Coulibaly soxnaam teew na moom itam ànd ak délégation bu mag bu dee sunu mbokki naar yi nga xam ne nag ñoom ñooy waa kër Cheikhul Khadim ay soppeem euh, président Mouhamad wulu Cheikh al Ghazawani day ko fonk sëriñ Mountakha fonk Touba jàpp sëriñ bi lu sëriñ bi nekk mu ne ca yabal na ministre mu ànd ak ambassadeur bi ak mbooloo ànd nag muy muy Seyid Adda Omar Talib ak ambassadeur Mouhamad Yahya wulu Taïs ak ministre Bamadine ak nag azawiyal xasaniya Cheikh Hamid Wuld Ishaq moo fi teewal zawiyat Cheikh Mouhamad Al Yadali zawiyat Tegmatin zawiyat Garak zawiyat Tungeen zawiyat Moutu Molana zawiyat Cheikh Mouhamad Al Mukhtar Daha Alawi zawiyat Cheikh Al Khadim ca capital ba Nouakchott ahlul xasan wul xamaadi seen zaawiya teew nañu zaawiyat fath saadiya teew nañu délégation mi ko ci bani sibaa teew nañu zaawiyat tandaxa teew nañu zaawiyat alkumlayliya teew nañu zaawiyat achadaliya ci rooso cheikh baba taal teew nañu zaawiyat cheikh mouhamad wul ajfax al teew nañu cheikh mouhamad ibn battar wul tulba teew na mahadarat annabaaxiya muy daara ju rëy jooju teew nañu sëñ Mortala Jaxate eh, bokk foofa bokk fii moom itam xam ngeen ko teew na ak monsieur Ibrahima Fall mi jiite bac bu Rosso ak monsieur Assane bu bàyyi ko Gàmbi ak Cheikh Yahya wul Cheikh Ishaq ak eh, Sayid Albara wul Mouhamad Daymani ak Sayid Makhtar Ba wul Mouhamad Luqman ak délégation bani Dayman ak wafdul xaaji yiin ak délégation al cheikh Sidiya ak délégation al cheikh Mouhamadou Fadil wulu Maamin ak zawit cheikh Ahmad wul Fatan lii mooy délégation yi nga xam ne teew nañu waa kii ko sëñ Souley naa ko waaw tudd naa ko al Ahmad yi ci refus ko tudd naa ko sëñ Mouhamadou Ndiaye fu mu ko Hmm. dakaar ak sëñ Maodo Sarr di ak kan sëñ Maxtaar Sarr waaw sëñ Lamine Ndiaye Dakar waaw baax na hmm? waaw dafa ñëw mi ngi waaw ah kay mooy mooy mooy mooy kii mooy mooy corps diplomatique jotuma ci de jotuma ci de waaw kon kon sëñ sëñ sëñ Mouhamadul Mansour Mansour Cissé di xalifa Pire teew na na mu ko daan defe mu ngi ci mbooloo mi waa kër maam xaalima jaxate kala ñoom itam mosu ñoo manqué màggal gi ñoom itam teew nañu kon sëñ Ablaye mi jox la kàddu gi nga jottali ko monsieur Antoine Ablaye Diome. sëriñ bi sa mbokk mi yegg si na léegi sëriñ Sidi Mohamed mu Alaaji Abdou Aziz da baax ak rakkam yëpp sëñ Babacar Sy Mansour yebal leen ñu ñëw ci moom kon nun ñëpp ñu àndandu déglu ministre Antoine Diome. ministre de l'intérieur moom la président de la république président Macky Sall yebal si muy taalibe Serigne Touba ñun ñëpp ñu àndandoo déglu ko bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wal qalami wa ma yas تُبْصِرُونَ mbokki jullit yi compagnie C3S dellu siwaat ànd ak yéen nam ko baaxoo defee ci jongante bind alxuraanul karim édition ren bii nag dépôt yi ñeel candidat yi fas nañu yéene door ko benn pan ci weeru octobre mu war a jeex fanweeri fan ci weeru octobre yow mi bëgg bokk ci jongante yi da ngay bind am xët ci alxuraanul karim sa tur sa sant sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci boutique C3S bu la gën a jege ci biir Sénégal wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bii di candidat point yaatal mbind topp tegtal ya lay ci yoon wi tax ñu mën a jot ci sa dépôt coppite ya ñu ci indi képp ku bëgg a bokk ci jongante yi say at warta romb ñeent fukki at moo waral képp ku jàll ci xaaj bu njëkk bi da ngay indi këyit guy màndargaal say at photocopie d'identité wala et cetera ñi bëgg a bokk ci jongante yi te bokk ci régions yii Matam Ziguinchor Tamba Kolda Sédhiou ak Kédougou mën nañoo dem ca boutique C3S ba nekk Ourossogui wala ba nekk Ziguinchor wala Tamba wala sëriñ Ousmane Jama nekk Ranérou 77 784 15 46 wala sëriñ Ahmed Tidiane ma nekk Matam 77 424 23 751 ku ci bëgg ay leeral foo mën di nekk ci réew mi ak bitim réew 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 alxuraan ay am ak na koy goreel anta bi ni'mati rabbika ya anna allah